بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المنفرد بالإيجاد والإعدام للقدم والبقاء قدما لا بداية له وبقاء لا انتهاء له وهو ذو الجلال والإكرام والعزة والجبروت والصلاة والسلام على من أقام بنيان التوحيد ومرتد أركانه وجمله وكمله وهو التاج أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام فإفرقكم على الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وذريته ومن نهى نهجهم إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فموضوع بحثنا اليوم يتعلق بالتوحيد فكلمة التوحيد مصدر جاء من وحد يقال وحده توحيدا أي جعله واحدا أما الوحدانية فحالة المتوحد فمستقات الكلمة كثيرة ولكننا نحن لسنا في درس علم التصريف وعلى كل هذه فالمصطلحات الشرعية أخذت الكلمة وساقتها فصارت علما قائما بنفسه لا يصح إيمان المرء بدون معرفته معرفة تامة فمعرفة الله تعالى بثبوت ما يجب من الصفات ونفي ما يستحيل وجواز ما يجوز منها لا يخرج به المرء من التقليد وهو الأخذ بقول الخير بلا دليل فالتوحيد مادة خطيرة يتحتم الاعتناء بها حقيقة لأن به مناط السعادة والشقاوة الدنيوية والأخروية للإنسان ووحيم كلما ازددت فيه بحثا وتنقيبا علمت أنه هو مبدأ العلم ومنتهاه والسلام عليكم wa rahmatullahi taala wa barakatuh waaleykum salaam wa wa barakatuh mbokk yi mbokk yi Serekunda mbokk Banjul mbokk yi Birkaama yi mbokk yi Kombo gi yëpp mbokk yi Gambia ak li ci kàddu l'islam

waaye araf boo xam ne jullit la bu gën a nuyu araf boo xam ne jullit la daf ko naan assalaamu aleykum nga dem ci beneen làkk naka noonu làkk boo dem am na si nuyu bopp waaye làkk yi nga ah nuyoo bi nga xam ne làkk yi yépp a ko bokk la ko dooree ci suñu bàyyi aadama ba ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te bu te nag yéen fii ci àddina ay la itam te bis penc mu yàlla suñu yàlla jéggalee suturaal ñu boole ci ñi nga xam ne seedat la yoo tukki wala di defar jaar jël ñu teel defar dafa ne seen la yoo tukki wala di defar jaar sax ñooñu rek ñuy wuti nag ku dul ñooñu doo wuti yéen a bi nag képp ku yàlla topp nam la war a toppee yow doo wuti ni yow doo wuti kon mel ni ku dajeeg fab kal mel ni faale bu dajeeg njaañeen ni karante yàlla comme nar yóbbu àddina te di la kon di la réglé noonu la lay réglé su ko defee nga leen mu ree ngeen ngeen ngeen ngeen tàggatoo tàggatoo alquran dafa wax ci suuratul insiqaaq fa amma man uutiya kitaabahu bi yamiini fa sawfa yuxaasabu xisaaban yasiira wa yanqalibu ila ahlihi masruura ñun ñu leen di mucc am ñoo xam ne ñoom dañuy jógee ci seen i xàmmeel seen i xar-xaram taaru ba mel ni weer bu toll ci fukki fan ak ñeenti ba sedd fukki fan ak juróom wala ñu mel ni biddiw boo xam ne bii dafa fàtte ci aral foofu la ñuy jógee rek malaaka yi jiital leen di leen musigal di tudd yàlla subhanahu wa taala di leen sport ba dugal leen arjana ñooñu la nag seen mbir doy na waar yàlla baaxee ñuy dindi suñ demee ba dugg àjjana assalaamu aleykum la ñuy nuyu alquran dafa wax alquran moo wax ne waa aljanna kii la nuyu moo di salaamun aleykum bi ma sabatu fa ni'ma uqba daar kon jullit suy nuyu mbokkam jullitam daf ko naan assalaamu aleykum moo xam suba la moo xam bëccëg la moo xam ngoon la moo xam guddi la فقل السلام عليكم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها فحيوا يعني ردوا الجواب بأحسن منها بيان لما ينفي حيوبا ولم في فحيوا نبنا رفق النودة لولا تعمان نيوا كنا جب ما ينفي تعمان imam bi nga xam ne moom la yàlla jiital ci juma ji maa ngi koy siyaare di siyaare njabootam gépp rawatina nag doomam bi nga xam ne ci suma programme mooy ci mag ci ay doomam mu di al ustaas Baba yi nga xam ne zamilul kibaar la maanaam àndandoor la bokk la ci liggéey bii ñu nekk maa ngi koy nuyu te di ko taragal ci jotaay bii nga xam ne mu ngi ñëw toog fii ma dend ak moom mu dend ak man te yàlla tax maa ngi koy nuyu di ko tadagal ak mboolem akan boo xam ne bii yaa ngi ci ma ne naa topp nit ñi ñëpp leen wax am ñu mer ah ngi suma suma فقال وربك كان فيه جرح يقصد لك من بشوك سيلا المملكين بالجواج المصدر من جرح يقصد لك كيف يتنك بينك إسلام سمستر برهم جوش إسلام سنبق مقام سمسرين ده لا بايم ستلا تمام ثم ستلا تمام ولم يتفجر الحبيب له حبيب له جنجل مجرد أي إسلام وأي إسلام جنجل ما كنت ستلا تمام ndax déggoon naa ci xeexu islam mu ne doomu aadama yi dañ jurante ñaari yoon ki la jur ci deret ak ki la jur ci ruugu mu ne ki la jur ci ruugu moo gën a foor ndax kooku moom àddina rek la jëme bu safara taalibe tey mooy pare jëm safara waaye sëriñ bi jëmee taalibe safara da tax na maa ngi koy ñëw fàtte naa turam nag Touré Aliou Touré sëriñ Aliou Touré maa ngi koy ñëw ah borom xam-xam yi fi teew yëpp ku ma ci tudd itam na nga ma baal ak koo ci xam ne kii tudd ma la na nga ma baal ak waaw maa ngi nuyu sama mbokk mii nga xam ne ñoo bokk ci liggéey ci benn place mu mu di sama mag Alaaji Asan Njaay

رجلا يجيب جعل تعبدني الذين متعبوا غير في ملك ألف يا رب صلى الله عليه وسلم لو جميع وانا وانا جميع ما صار فقال لي بني بنتي تقول لك كما تفعل وقالوا لنا الفضل للمتقدمين لولا برا مقام الحرج الفضل للمتقدمين قال كنا افتكار لنا ما بين كوان ما بين بي جنب بكل تلقي يا الله بمرضي رقم لنا بسمه تبوت ويبتدئ لك سلم للقرآن وحي لك قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون آه، للقرآن وحي موجن فيه من جبل suñuñ jëfee yàlla gis ak ak yónnantam ak képp ku gëm yàlla ci alquran yi muy wax ummatu muslim doy na waar borom xam-xam yi dañu wuute ci al iman wal islam ndax wuute nañ wala déet ñi ne wuute nañ ñi ne déedéet wuute nañ lépp benn la ku am liman foog nga am l'islam ku am l'islam foog nga am liman am nañu wax loolu de waaye soo demee ci suratul fujiraat alquran daf ko fa leeral nañ ne liman ak islam du benn dama ko gis ci ihya wa ulumuddin bo bi nga xam ne al imam abu halid muhammad al ghazali moo ko liggéey ma ne xawma lu tax ñu utee lu tax ñu utee ndax dafa leer nañ ci suratul hujurat قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم لو نقل ndeke nit mën naa nekk di muslim fekk nekkoo di jullit nekkoo di mu'min alquran ko wax dafa am ay nit ko xam ne dëggee woon ci àll ba nit mën naa dëkk ci kaw baax nit mën naa dëkk ci kaw baax mbaax daal ci loxo yàlla nga nekk ku ko neex rek mu jox la ko waaye ñi ca kaw dalam jógee arab yi di leen tuddee al aarab mooy nit ci kaw ko xam ne dafa nekk ci àll bi amul lu bari loo xam ñu ñëw nag ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di jotee def loo xam ne doy na waar dañ ko doon joor sax naan ko yaa Muhammad yaa Muhammad di ko joor pour mu war a génn ci la suratul Hujurat wàcce yàlla di wax julli ñi naan leen laa tarfaw aswaatakum fawqa sawti nabi ولا تجعلوا له بالقول كجعل بعضكم لبعض أن تعبت أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم بالتقوى لمن سوسي سن با سنين دي عن أنت النبي صلى الله عليه وسلم من كفارة كيانا فارة وكنا فارنيك وكنا بحنيك آه نيوني بنك سيونا تبيدنا ودعني توب فتانا وأنت كدوبا jama no ngi naqari trop waaw nawet amul maalo manki waaw dugub manki te dara te dara nag ci ñu ñëw biñ tuubee ba pare rek mel ni ku ñëwoon fii ci imam fekk ko muy jiite ñu ñu tànk sànn nga tuub ñëpp seede ko nga dem bala ngaa àgg ci tali bi wëññi ku si aar naan ko man nga siñ bii def saa ko maale yi na nga ci génnee jox ndax ñun dugg nañ ci diina ji te sonnaluñ la hono jombe tukkini ma ba yalla ne jotul nak yeen da ngeen dugg ci l'islam waaye tuuba gu leen nag li la li ma dugg ci keroog li kon ñoom daanaka daal maa tax ñu xaaral ci aaraabu aaman naa ñoom dañ ne gëm nañ yàlla kon Mouhamad wax leen ne lan tuuminoo gëmagu leen yàlla la ko doonee ba ngeen dugal seen dëkk ba léegi ñuy ñeen di wax gëmagu leen yàlla ولكن هو أسلمنا نيلين يقبل من يقول أنت إيمان ويقوم يقول أنت قال كلمة مسلم كلمة مؤمن بينهما فرق بينهما فرق كيف لك ومن تشكي في الدنيا فسيد يحسين أنت مؤمن أنت كنت يا الله جنت الواحد صلى الله عليه وسلم نالس من كتير وعين وكفوك يا كده سيدا لن كنت كنت يا jàkka xam nga problème bi dañoo bëri lii tax léeg-léeg ñu demee ni man bala nga dugg ci jàkka ji dañoo xaar ba jàkka ji waate fees ñu nekk ci sax bu juba bu imaam ne asalaamaaleykum bu ñuy taale dëgmal rek léeg-léeg sax seen subhanallah bu pare bi fekkee bi jàkka ji àddina bi dund bi dund bi dafa dafa dafa doy waar dund bi àddina bi dafa doy waar waaye ci gëm yàlla pire moom day nekk ci jàkka ji mu juba day nekk ci jàkka ji dellu fa mu jaar Islam sehingga ketiga-tiga Jika kita punya kuliah di semua nur ditunda mistiyasi terus jaga. saya dilakukan kubur nasal kalau kita ingin jauh jalan siapa sih ketimbang cukup orang yang tahu bertahu yang ini jaka di dalam yang aku yang aku pintar bunda asyik dikutip kita ini situasi seperti baik lor lor saya akan mujib لكن يسمح له أن يدخلكم من محض فضله وكرمه إن لم نوفيل gannaaw ni ñu ni la ko ci jaar maa ngi nuyu jigéen ñi nga xam ne sàpp ngeen ñu ñaanal leen te dara xewut jigéen ñi julli yëpp ñoom itam génne ci leen ci yàlla ci góor la ko wàccee موتي محمد صلى الله عليه وسلم وحجيني سيديكو يا رواتي محمد يا زنبي جيجين موت جيجين جيلي داسكو يبور كيسكو بيجين جيمانا كادا يدن مدي بك المروا دون جيجين فنك تقال الله ينتبه صلى الله عليه وسلم جيجين موت نك بني على تكوس كل لون جيني لغاتي آه، كيسكو yonent bi ban demee ba gis lu attanul ngir ne kat basar yàlla am ci àdduna bi fii yonent bi xam ngeen ne du Muhammad du moromam du moromam kenn ku dul yàlla waaye bi mu wàccee fii ci kaw suuf waaye ni ko jur nag mu amee jikko yi di kontaan di am lu ko naqari ba tax bi mu gisee malaayka ni ci guddi yi dafa am ak tiitaange waaw kan ak kan ak jëmb ba Muhammad gondo gondo yàlla ak yooyu li mu gis mu saytaane di jinne kooku jigéen la kon jigéen ñi nañu xam seen taxawaay ci diine jile nañu xam seen taxawaay ci diine jile te bu leen ci dara dara dara mën a génne nañ xam ne ñoo ko moom gannaaw bu ko yàlla wàccee ci ñoom ci ñoom ci seen loxo la ko teg ñu di ko bambaale di ko teete bépp dina ci mag kooku la ci jiitu moo di yaa Xadija bintu Xuwaylid waaw moo di yaa Xadija bintu Xuwaylid ki deretam njëkk a tuuru jullit bi deretam njëkk a tuuru ci àddina ngir lislaam jigéen la jigéen ñi am na njëriñ ci diina ji de waaw jullit bi deretam njëkk a tuuru ruuxam dem àllaaxira ngir diina ji ونتيجة لك بنات السمية أبو جعل السلطنة سادة محمد بنتيجة جنة بي كسنة وفرصة أبو جعل سادة ديو وفرصة بحيرو لو ربط عن لك مجيلا بكبر دلت كوي جم تنجي دم بكبر بكبر بسبب السوف ذكر جنة لا إله إلا الله محمد رسول الله روح جل أدب kon na nekk yéen ñi diina jile na ngeen ko téye yéen ko moom bu leen ko téye sax ngir tur waaw wallahi su ngeen ko téye rek yàlla dana bàyyi seen tur ci àddina nit ñi di ko wëy ba bés peccum yàlla yàlla dañ leen teete dugal leen àddina ngeen nekk di boor ci jigéen ñi xuuru ay na ya fa nekk jigéen ñi julli su duggee àddina mooy ëllëg jigéen ñi xuuru ay na ba nekk ca àddina waaw ñu ne leen di ëllëg ndax yéen da ngeen wax dund wax coor feebar kii ah di di di seet ko war koo toppatoo toppatoo njaboot ah dee mos dee mos dee ñu dee sa rek rek nga dem ak dina yaa war a nekk boo yaa gën a sonn tee ni dina jaar këru jaar ko ah mais sax ne yaa ko war a jëli waaye loolu bu def dafa ni bu leen kenn nax wallaay dina ji yéen a ko moom yéen a ko moom kon maa ngi leen di sargal waaye ndaw ji ndaw ñi maa ngi leen di sargal ndaw ñi waaw su ma nee ndaw ñi am na ci olof ñu naan waxambaane am ci olof yi naan xale yu góor am ñu naan ab jokk ndege maari xale yi xale yi islam bi maa ngi leen di nuyu te li ma wax ci jigéen ñi moom laay wax ci yéen yéen nag kenn mën ko tënk li ni leen islam soxlaa moo ko tënk fii kon dafay yàq suñu waxtaan islam daf leen soxla trop gis nga ni leen football football team yi soxlaa loolu la leen islam yi soxlaa wala looloo moom sax ni leen drogue bi soxlaa loolu la leen islam soxlaa wallaahi looloo moom ni leen taay bi ak yamba ni leen tàngara bi soxlaa ak bàyyi laay club ni leen soxlaa loolu la leen islam bii soxlaa waaye lu raw loolu waaye lu raw loolu لأنكم دماء الأمة أمة إسلامية وأنتم روحها لن ينايدرك أمة إسلامية ويقف الإسلام نعم ينايدرك نعم أي سيدتهم نعم أي سيدتهم سمع مقبل سوما الحياة mu ngi وأنا waaye xam naa ne mool bu mool bu mool bu diis tegal ko def ci jumaa moom mu fexe ba mën boobu am ak ñi koy jàppale kala ko war a yëkkati ñoom loolu tax islam bi daf leen soxla waay ndaw ñi dimbale leen islam bi dimbale seen bopp la yàlla soxlawul kenn kenn ku ko dimbale te loolu su fekkee waxtu yi maye na ko ah, topic bii dina ko indi yàlla soxlawul kenn ku ko dimbale soxlawul ku ko jaamu ñu ne soo ñëwee ci uluhiyyatullah bi haqiqati ilahiyyati dëgg dëgg yàlla بدي بدي على صوت عقيد بلاستك كيما كان رأتي بالبيت وزيادة فلاح فلاح كيما كان ربيت أو تبين أتي جل غير يلا برا من الدكتور مرة يوم سياحة لكن جيل كنت دار دار دار كل يوم كنت دار لو أنا يوم فلاح كما كنت فيه ودي هو كيما مثل كم خمسة من يتفرغهم يتفرغ أجرهم ida tan sidi kam di mucc addina alaxira kale boobu mu ngay arak boppam addina di yàq léppam ba alaxira yàlla yàlla dal ko far dugal ko safara foofu rek lay wutee de waaye kenn jëriñu ci yàlla dara waaw kenn jëriñu ci yàlla dara loolu tax imaamul ashari te moom la ñuy waxtaan ci ci waxtaanam waaw ci pare ko mooy ci asaaji ak ci masabul ashari imaamul ashari su ma waxee loolu moo ci nekk imaamu asali moo ñu andi alquran am nu ñu ko firile ci wàllu tawhid ñu fekk la ko dooree ci alaaji abdoulaye ñes jëm ci alaaji malik si jëm ci sëriñ touba bamarom tuuti cheikh la saadu abidi cheikh makout ak mouhamadul mouhtar kunti wa man waalaakum ila ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ñu fekk ñu ñan way tëddu la ba yàlla gërëm leen loolu tax ñun mazhab boobu la ñu gis إمام الأصلي عقيدة الأصلية الإمام الجنيدي جنيدنا فريقه مقاوم لولبرم المنسد المعلمة جنيدي ومثلا توالو حقيقة مملكة مملكة شيخنا أحمد التيجاني تفقه أميننا أميننا توالو معرفة بالله لولا تعملي سني وقتها تتولي ñaari góor yi yàlla yi dañuy jël def leen ni suñuy këru def leen ni suñuy làmp ak la leen toppoon ñu jëm ci yàlla subhanahu wa taala kon dañu àgg kon dañu àgg fa borom bi subhanahu wa taala kon léegi ñu jublu nag ci waxtaan bi moo ci ne ñu ngi wax ne ñu ngi sant borom bi subhanahu wa taala nga xam ne moo wéetoo mën a amal ak mën a ñàkkal xam ne dëgg yàlla rek ko man alal ak ñàkkam loolu yàlla rek ko man ah gis nga parce bi ñuy naan atom xëy na am na ñoo xam ne dañ xam ne day atom waaye ma andi benn pepp sàlleen sàlleen moom ñu koy xam nañ ko benn pepp sàlleen amul dara amul kenn ku yàlla bind nga mën a formé lu mel noonu le amul nga amal ko ñu jëlee ko ci ci adam andi ko ci wujur loolu kenn mën dégg looy yem ci xam-xam dafa fekk yàlla defar la muy defar ba pare mu tibb ci loolu am lu mu ca def waaye amal loolu yàlla rek ko man loolu tax gil ijaaj yi waaw moom mooy ki mën a amal waaw te xam naa alaaji Maalik wax na ko moom la ubbee ne alhamdulillahi bil ijaaj wal qidami ijaaj ijaaj kalimatun min awjada awjada awjada yujidu ijada amal na loolu yàlla rek ko man waaw amal amal yàlla rek ko man al ijaab loolu tax ñu koy sant nag ci amal gi muy amal hal ataa ala al insaani xiinun min ad-dahr lam yakun shay'an mazkuura إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا سميعا بصيرا إنا أعطيناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا kon yaa sa dugg rek ñu lay sant yow bi nga xam ne yaay borom amal yaay borom ñàkkal yaay borom ñàkkal yaa ci jiitu nag jiitu goo xam ne amul fu mu dalee yaa ciy def itam def goo xam ne amul fu muy yem yaay borom màgg yow yàlla yaay ki mën a teral itam ku am teraanga yaa ko teral yaay ci tëdd yaay borom ak mbir yaa rëy te yaa màgg ñu ngi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tëri sërmal ci moom moom daal mooy koo xam ne mbiram doy na moom moom la mbiram doy waar ah tamit bi ngeen joxe tamit bi ngeen tax yàlla bind képp lu bind yéen a ko baax de yéen ñu ko baax man ngeen a tàng de moo ko bële tamit bi moo ko bu moo ko bu génnee asaka moo ëmb faar moo ëmb ajum makka moo ëmb topp sa yooyu moo ëmb defar ak bokk moo ëmb génne sarax moo ëmb bañ lépp lu bon moo ëmb ko lépp lu baax moom taw it ko am lii daf lay yomb ku ko lay lool taw la ne am na doole وانتم بين ما جرى صدقا تولي كل من الفنون وكثير جدا كان يقول لي لكن الوقت يا ربي يجب لديه يا ربي لي آدم نقول خلاص لدي التوحيد وعلم آدم الأفضاء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأفوال هؤلاء إن كنتم صادقين تبتلوا سبحانك أنا أقول لكم إنه لا علم لنا إلا ما عزمتنا إنك أنت علام القيوم بدأنا نوي مكتابة شنو بالك آدم عندكم لكل واحد ولقد ولدت آدم بدون يستفتي محمد صلى الله عليه وسلم وقت وقت عليه توي إنه نتيجة لا فرق نتعرف فرق نتيجة kamata bu kay do yar ci mëna bu fay ni do adama yi delo ci hak ci ak ko yar bi jaabo day bantati do adama day wax kay ni ko yalla way ak kala ci ko yalla ci da ka war bantati ko jaaw wala kala ci ko jaaw xam ngeen lolu dafa reer waye ci yalla yi ak liñ taray taray ak liñ son son waxtu wa ko ne ci gën ki rek do adama yi dal di foye ci indi woon طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ورجع للبلاد وليد الاجماع بعد الاجماع عمل صلاه مرضين ولكن حمل موطعه موطعه ثم بلد بلد التراح طبق التنكيل بلد دجر التوقيع بلد كويتارا مدرك السكر دار ما كيفي تكلم من كل عمل تبع بالمريس كل عمل كلمة الإسلام سبعية تبع مني ku tabax ak sa loxo yow nga dem ba jub ko yow nga dem ba jub ko di di def la ngay def lan yaa def ba tabax ni ko yow tëjoo tabax yeneen i tabax ngay def islam sa ko ko yàq noonu lay def doo koy laal doo koy mën a laal wax boo ko laalee rek comme nga laal ko fekk laaloo ko sa jëmm nga destroy sa jëmm nga yàq yow yaay yàq rek xaral ko rek islam day ko continuer wallahi yàlla moo jël kaddu wàcce ko ci alquran

إن حرف التوكيد ليس من الغرب نعم دليل متكلم لو معه غيره وأكيدك دليل متكلم وحده هو إنا نعم نسلنا يعني. نعم، نعم. من إلى نفذ الرجيع كل قبر ممر لممر إنا نعم نسلنا الفكرة عليك والنار معرفة فكذا وإنا كتلية وإنا وإسنا كلا إنا جل لك برد من له لحافظ سبب عجب له سبع للحافظ لا لا كده بغير له إجابة مجرورة للحصر لتفرق وإن لم نكن مستمرا والله يسلم المسلم ولم نعتق في واجب ورد كان ينبغي عليه أن كان جالسا أن يكون جالسا هنا فهو لا توفيق ما هو انا صفي ngeen boole ko ay foog jëm ngeen man koo jàng waaye jëm leen jàng lislaam waaw boo xam da ngay jàng lislaam boole ko la anglais wala làkku français wala nga jëwaat boole ko carpintaire ci taal ci ko jumlee وترحمه إنا نحن نزلنا ذكرى وإنا له لحافظ إن حق التوكيد أي ذكرى نحن دليل متكلم لو رمعه كلمه وأسئلة دليل متكلم وهذا هو إنا نحن نزلنا ننظر إلى فريق الرياح كل قبل الموت يا ماما إنا نحن نزلنا الذكرى هو الآن وإنا كفدينة وإنا ورثنا كلام إنا جل كبار نعم يا له لحافظ سدد مجيد الله وسبع للحافظ لا لا تدعي له إدارة وجوه للحق لتفروا وهي ولا ما كان مستمر والله سلمان مستمر لا توفي واجب وعرفه لعلي أن كان جالبا أن يكون جالبا هنا فهو التصفيق فهو التصفيق جلبوا لكم كان يسجل من الكجل ويتمين بالإسلام وقد تنيت بالإسلام ولكم لا عندك ولا لكم فرنسي ولا تجوز ولكم الجوع wala غبوا لكم في النوم يكتمبي ولا غبوا لكم في النفس يكتمبي ولا غبوا لكم في التعب يكتمبي wala nga boole ko ci dem sa martaba di jari jari bu njub jaay bu jëb di ko dundee loo mën a def rek loo xam ne baax la bo boole ci jangal alquran bët bu sa ñaari aaya bët bu sa ñetti aya nga fexe xam lan la yàlla wax waaw xam nga lu ko wax leen bi ah sa gannaaw dafa am waxtaan bu ma defoon ci Gambie Corée mooy lépp li ko waxtaanee ñoom ba defee ne danañ ma gën a xeer su ma paree su ma paree ci digg tuuti dara du ma nuyu ma ne alhamdulilah ah dama leen defal waxtaan ci kam yàqale muy rawatal ma ne dafa am borom xam-xam bu fi ñëw boo xam ne bokk ñu diine donc di def waxtaan ñu dem parten waxtaan am yi ñu ko doon laaj waaye dem na ba jaxasu suuf àndaal dem nañ dëgg naa am yoo xam ne gis nañ ni islam daal am na leneen lu lu mën a lu mën a lu mën a tolloo ma ne leen li ngeen di def ci général Fall ne la ne nak ne la guddi ngeen di def ngir général Fall Patrick Fall mathématique biologie journal histoire science ak leneen ak leneen su ngeen ko joxoon su ngeen ko xaajoo fukki xaaj yëpp ci benn xaaj def ko alquran ñu kon waa jëf bi ñu metta am seen kanam loolu laa leen wax man la lay la def lay la def def da ngeen ko gis mu wax Mawla Diouf xamamu fi def wala da ngeen ko gis ay doomam wax kenn du ko wax wax nañ ko ba salaatu xayru min an-nawm ne kenn waxu mooy waa da ngeen jàngi alquran rek ndaw ñi jàngi leen diine ji ndax garab ngeen mën a dimbali diine ji ndax ko xam law na ndaw ñi ñàkk xam ci tax na diine ji des na gannaaw xam naa sax su ma yemoo ma ne astaghfirullah diine ji moom du ma ko dellu gannaaw dara nag l'islam ak mën l'islam dellu gannaaw loolu laa wax baax na ne islam dellu gannaaw waaye islam moom du mos a dellu gannaaw ndax islam moom fikratu mustaqilla min indi rahman moo ko ko ci islam moo ko ko ci julli bi moo mën a tardé moo mën a dellu gannaaw moo mën a tardé moo mën a dellu gannaaw waaye islam du tardé du dellu gannaaw du tardé du dellu gannaaw mais tax nag ah ndaw ñi nañu jibale islam ni nga def ci ak ci diine dimbale islam nag li muy firi mooy dimbale sa bopp alquran na ko wax in tansuru llaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum in tansuru llaha yani in tansuru diina alfarah yansurkum ma ne ñu ngi julli gën a si julli gën a si nag sallallahu alayhi wa sallam dafay far bakkaar wa am nañ leen ko bëri julli julli gën a si bi dafay far bakkaar dafay indi jaaxle waaw هو مش بالله كده كل جميع واحد لكن لك ليه سبحان الله هي سبحان الله محمد لامي اسمع قلت ده ما واحد كمان ما كان بيني الحمد لله وما ربنا ما تعرف ما عندنا كده يجون بكرفه ولا يوم صلاه على النبي صلاه على النبي يا جماعه أنا لا يجب أن يكون في صلاة الصلاة لا يجب أن يكون في صلاة الصلاة moom bi l'islam àggee ci moom l'islam ba ne la ko doon ci aadama la ba ci Muhammad loolu mooy islam amul benn yonent yàlla boo xam ne bii ñëw nga fi dantee nit ñi nettali nit ñi lu dul islam l'islam rek la woon islam rek moo di wàcc ci ci ci yonent yàlla yi xanaa dafa àgg ci Muhammad tey mu def ko loo xam ne kenn mos a gis mel noonu waaw yàlla dellu ko ah feeg daal di koy may ne ko yow sa gannaaw dara du ko yàq looloo tax waaye waaye yonent yi yëpp islam lañ andi woon islam lañ andi woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di ne yàlla de digal na ma leen naa xeex ak nit xeex ma ko war ko bàyyi car man naa nekk jàng man naa nekk yàq man naa nekk ku dëgg waaye xeex mën naa nekk sant laa mais bu set wér ci wax dëgg laa ne bu set wér ci wax dëgg لقد استعجب من لك الله سبحانه هم بدون لعنة وحدة لعنة يقدم الصوت يمكن تبين الجنة في برامة مستوى تنبني شو رأي الرقم ده ده ايه من دخلو لقعه شكر كده الى الرقم ده محمد من مستوى ليش كان فكرة واحدة احنا كرسي واسمه جلالك من اللغة هي طبعا دي بتيجي يكون عندنا في الماركت ماركت بلسان وصار من الماركت في كورونا ndax ñëw na yëna ci sallallahu alayhi wasallam dama bëgg nga ñaanal ma ma dem àjjana ma dugg àjjana yëna ci dal di muñ xalamam riyaat yëpp muñ la sayyidu ضعفه التبسم والمسير هوينا ونومه الإكرام ولو شقاء Dia bi daldi mun ñaan ne ko màggal mu jigéen bii dugg àjjana dana xalaat ñaan da nga dem àjjana màggatum yang bii dugg àjjana yang laa lay ajar, da nga dem àjjana ha jigéen jooju kërëm tiit na trop ndax xam ne ne kii bii wax waxi jaar bii wax waxi di jooy rek la yonent bi ne orange ma ñu oo ko mu ne ko kaar dama waxtaan ak yow danaa ñaan yàlla nga dem aljanna yow wax aljanna la waaye li tax ma wax loolu bala ngaa dugg aljanna yàlla daf di jànq boo xam ne fukki am قبل هو بدنا هو بدنا أحسن كل لو عندنا مرة ما تبع تاجي لكن يا من يشكرنا تجارنا مني لا أك وأتنا تشكر كنا كنون كوبير أراب كنون أراب لكن أنير تقبل إذا إله إلا الله محمد رسول الله loolu xam ne wax anni rasulullah ah nit koo xam ne yow nit rek da ngay lekk di naan da nga doon dund far nga dee innaka mayitun wa innakum mayitun summa innakum yawma alqiyamati inda rabbikum taxtasimun waaye nit koo xam ne kii yow yàlla ne moo lànk du nangoo antare kenn du nangoo déglu kenn koo xam ne jaar ci yow loolu dañu wax malaaka yi jinne yi don adama ya yanci ya nemi sa kyarmi a mutu kyarmi a mutu da mazifi da risala malam sata ya farbina ya na jos a wa ta'ala ni na wako ilmi na wako an da sauka na daga jafi yau fi sun zuwa lolo ta ɗaya ta a wasu sauƙin ne ya bani isra'il إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد يصبح أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سر مبين من عرب ترفعون واني رسول الله لا اله الا الله هو يكفي عن مثل الاعداء ومثل ما كانت من غير الاعداء ولكن في وانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد بيتي ماجدا امر ميزان ايه بقى محمد رسول الله اه محمد رسول الله دولة عمره واني رسول الله ودو انا ما يجنين نقول اول ثاني يهدي المتعبة آه، يهدي المتعبة بين الصعبة إنه كيف كل تدعي إلى لا إله إلا الله من يدعي الجنة آه، من كل لك من الله كيف قوة من كيدينا تدعي إلى لا إله إلا الله من يدعي الجنة من قال لا إله إلا الله دخل الجنة أه؟ واجب kima da dutse hannu jini ne bujan da yau nawa ma ku zai yana tsaya da yau da yau nawa mooy man ku ma toll maa ngi bugg alaaji Assane Ndiaye jëm àddina alaaji Assane Ndiaye fu mu toll mu ngi bugg raba ji jëm àddina raba ji lépp waaw wala ma ne moom lay yuur borom subhanahu wa taala muy doon la joo xam ne moom ñu ngi ci xam mooy day sekkaral sekk sekkaral yàlla moom kenn du ne dafay yëngatu wala nga ne dafa te teeral déedéet te teeral liggéey fa koy def yëngatu liggéey fa koy def yàlla yëngatuwul te teeralul dara jóge ma ne mooy ñëw nga entrain sa baay ci biir lopitaan topp ko lool yërëm ko lool doole jóge la ñëw roof sa baay kenn def ko te tax ca ko fàtte doole nag di yóbbu sa baay jëkkat ci ruufu ko Hmm. di ko génne doo gis jëm doo gis mira doo gis dara te doo la ci la ko neex naqare doo di wax nag yaa ummatan li nufuusina min firqatin abadiyyatin lil la'nati muta'addidin danja li ay wala ñoo jaaxle ñun doomu aadama waaye ñoo am ci tànge donc seetal am sa baay mu jur la nga ko doola am sa yaay mu ëmbal la yërëm la waaw ba nga tene àddina mu di la yërëm da nga mën a faj sa aajur mu di la yërëm jigéen moom balaa gën a yërëm doomam doomam dem am xam-xam ñu jox ko balaa bu rëy muy dem ak a dikk bala bay gën a yërëm a dikk moo tax kenn mënu leen a fay kenn mën sa fay jigéen bi du leen gis ko jur la loo ko mën a defal fayoo ko da ba ko ayo ti ne ko kana sama ya ni fa ka ko nan na mi arabi afar ji ko mu jëm ma ko ko da ta ke na ñoo su soxla ko ko sax ma ne dem te sax ci sutura ci ko ana fay na ko ko yéen ci bi ne ko fay fay fay ko fay ko ko xam nga lu tax fay ko ko yaa ngi yaakaar te mu dee moom loolu la nga defaroon te boo boo boo dee ba dee sax du réew

ma ne ci xam-xam ci la ñu mën a amee tawhid waaye xam-xam boobu de ni mu ko doon nekk ci suñu bàyyi aadama tawhid muqaddima tawhid rek ko ci këyit ci kaw dara muqaddima bi rek mooy li ñu mën a jëfee wala jëf ko mën a tëjee ci kaw dara dafa yàgg suñu bàyyi aadama la yàlla xamal tawhid mu wax moom fii ci kaw suuf doomam yëpp topp ko daal Adama am na toog bindkat yi bind ne balaa gaañ balaa dee gis na téeméeri junne yi doomu Adama yoo xam ne ay doomam lañ dafa ko doon tax téeméeri junne yi nit ci kaw suuf balaa Adama ay gaañ ñi ñëpp naan laa ilaaha illallah ñi ñëpp naan laa ilaaha illallah gannaaw bu gaañoo taw bi boobu daal di roof ñu ne jéem a waaye am ñeneen ñoo xam ne dañoo lank li seen bàyyi ne ko janaa bu kaan la ñu sopp rek jaamu këram dana jiddu jaamu këram dafa am ci bindikat yi ñu wax ne mu ngi sosoon ci fitnaay jigéen boobu xam ne bi ne góor ñi mooy ci leen fitnaay jigéen sooy dox ci mbedd nii ba sa fee jigéen xar xar daa fa sa loxo laal ko mu saa yàlla bu fay de yéen laa doon at man soo dox ci benn bi nii xar-xatu marché bi sax sa mbagg teel jigéen mu g e s s u saaga la ndey bul fay bul fay bul dóor continuer jaxas signal jigéen ñi nekk bi ne góor ñi daw leen ko lii biir jàmm ci signal jigéen e ci la bokkaale yàlla amee moo di ne aadama dafa ay am ay doom ay siix la yaa xaw a di jur góor jigéen bi bu ci nekk góor jigéen su ko defee ci sariyaam aadama ci luwaam biir bu ci nekk ñaar ña juddu góor ak jigéen bi ñu jëlante góor ak góor ak biir bii mooy sey jigéen yi biir bare góor ak biir bare mooy sey jigéen yi biir bii loolu la ñu war a tëddee xaabil ak xaabil nag problème dal seen diggante kii kam war a jël ku ñaaw la kañ kam war a jël ku tawam la mu ne ko man ki ma bokkal bi ci benn biir moom laa jël moo la dal Adama dafa déedéet su ma sañaa laa fi dóor dafa aar kañ la war a jël moo gën a sañaa jox mu ne ko da ngay gis ànd kooku mooy ko kii dafa nit ci bàyyam donc ñu nekk nit ci bàyyam su fekkee ne ñun ñii wala ñeneen am na ñu leen seen i baay te digal digal ñu leen mooy yàlla nañu tuub am na ñu leen seen i yaay te yaay la digal ñu leen mooy yàlla nañu tuub way jur daal ak lu mu mën a mel soo koy moy di ko moy di ko fontoo di ko fontoo di ko lor ba yàlla def dee fekk la dama arrêté saa yi yéen ñu yàlla ko ci loolu ba dee fekk la yow kenn mënatu laa rubu

සොරකම් ගියනවා සබතරත් සයිවල් ජුර අපද කපනෝ දොරෙන් ජිර සමරන් දෝ දොරෙන් අමර සම්ද දොරෙන් අමර සම්ද දොරෙන් තකපස් සම්ද කො මන يمكن بلا كاد ولا تيمين او سفر بك لو كنا نبين كاد لا تيمين يسأل ثم يسأل أنه تزعج في أثر الضلال وضع كل xalaat mooy way jur yi jéggi na day nag ah xëy na yéen seen fii xëy na yéen seen fii bu ngeen di taxaw waaye ñun ñu dëkk ci àll da ngay gis jigéen joo xam ne fa tabarakallahu day xëy dem ci àll bi di liggéey ba jant bi sama keneen fayu mat wu teg fayu mat wu teg nekk ay yëngu ñëw dëkk ko taal reer toog jox doomam te doom doomam di bàyyi ko ca kii ba ñëw ñu taalal sa lekk mu nekk moom lii ba kañ lii ba kañ ngeen da ngeen a am wax you are not as bad demu leen ngeen dem demu leen benn wallahi su ma yàlla da nekk rek su ma yàlla rek ngeen nekk billahi ñàkk wa yërëm way bi ñàkk yërëm way bi yàlla na ko ngir waaw nan mu gàtt dem raxas ba mu set nga taat dafa muy kii alors que la yàlla wax na la jéeg mooy su la bëggee nga nga def bàkkaar la mu ne jéeg su la bëgg a digal nga naan bàkkaar yàlla na jéeg toog rek وإن جاهدك على أن تشرك به ما ليس لك به علم بلاء الامم وصادق امم في الدنيا والاخره واتبع سبيل من اناب اليه ثم الي مرجعكم الى القران وذكر توحيد الروح كي كنت كان جيني تي ادنا موي كو اندي جامو كرم اندي كيفاريا موي كي نكو نيم دي بارا ولي قاتل ni kere ni sama jur da bay da bay fa mo ci nek di yeba yalla ni yalla mu ta ci ni ci ni way ko wetti sama jur da bay fa mo ci nek di yeba yalla dina mu nek ci islam so ngeen ci islam akere nga jëm waaw so ngeen ci islam te ci liman te ci tawhid aljana nga jëm sabi amul na ko jage aljana nga jëm yalla dina ko wax ko ma fa yalla ki mo ne koko ko allah hima wuyde lamɗe ma ni to e an la ilaha illallah addire le jom lono tax ñine bo amee bo tekke ba wuyde nga tekke ko allah ci sahu nanga ñëw denden moom falla ko ba naan la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadu rasulullah la ilaha illallah muhammadu rasulullah nanga def dum ngir bu ko déggee mu mën laa roy bul ko nee nag wax ko déedéet doo wóor métti ku dee mën naa tax mu ne la déedéet du ma ko wax bul wax loolu bu waxtaan nan ngeen wax rek ñu dégg dafa am benn wali bu doon dee mbokkam ñëw kenn ak moom naan ko nen laa ilaha illallah mu ne ko yaa wax sabal su ma ko wax waay fekk waa nit góor yàlla la wante ni ba kii ma mën a wax mu ne ko waaw yow de dëgg sax ma jaaxal dama ne nga wax laa ilaha illallah nga ne yaa lakk nga ko wax mu ne ko wax maa yow de man iblis laa doon waxate iblis mooy naa wax ne moom am na fexe dañ ko yàq naa wax ne su ma ko si jóodalee danaa mucc ci dara ma ne ko déedéet maa lan du ma ko wax ma ne ko iblis laa doon wax waxumaa joo loolu nag moo tax ñu ne bul wax kii bu la dee naan ko waxal laa ilaha illa allah ndax koy bàyyi sa bopp te naan laa ilaha illa allah yaqraw doa si nuuni arbaina wa laada wal ixlaas wa jihad su fekkee man ngaa jàng لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لو ارتبت بالله سؤال يبقى الذين لم يجعلوا المنين كيف يتكلموا من لا تعتمد تقرأ من لا تعتمد يرجو سورة الرعد soo koy jàngal ku gaañu yonent bi ne dafay tax mu mel ni ndox mooy génnee ci sadara ruuxam day day sotteeku mel ni ndox muy génn ci sadara xam nga loolu doon bi day am waaw yaa ci ni tam la dalul nag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 alqur'aan naxas xaaral ñoom loolu la ñuy jàng waaye loo ci mën a wax rek عن nga jàng qiraa boo mën a عن ابي بكر عن ابي بكر الصديق عن رسول الله عن فلان عن فلان عن فلان عن عمر بن الخطاب عن رسول الله عن فلان عن فلان عن عثمان بن عفان عن رسول الله عن فلان عن فلان عن عدي بن عبد طالب كرم الله وجهه عن رسول الله عن فلان وعن فلان عن عبد الله بن مسعود عن معاذ بن جبل عن معاذ بن جبل عبد الله بن مسعود عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤتمن الجيش عن قراءه سبعه ما ما قل هو الله احد الله الصمد قل هو الله احد الله الصمد بعد قل هو الله أحد لله الصمد لله قادم loolu mën a tàng baax soo ko firee rek muy mbir ma waaw soo ko muy soo ko firee muy matu loolu kenn na matu loolu kenn na nga xam ne kenn mën a koo baax xam nga pour ma soo ko bindoon ci kayit bi soo natee kayit bi day baax soo ko natee rek ko baax waaye lépp lu ma doon wane ne moom moom du ma ko baax lépp lu ma di wane دول كيف قرابة دول كيف قرابة دول كيف آه زي كما قلت رحمة من يحجدون من دانا وقد أنون طبعا لا خوف لك ده ما بقول لله يفتح مني da faam man moom a nekk li nekk am na ku nekk fii maamam du ma ko tudd am na ku nekk fii ci mbooloo mi maamam dafa mos a bindal ñi téere ko ñu won ñëw ah dañ ko fukki fukki haaja ci moom bu bindal ko téere léegi téere ba xul woon na ca góor ga bind am beneen sëriñ bu doon waañaan moom itam am ko ñëw ci moom mu bindal ko xaatim am ngeen xaatim ah ñoom ñaari ñaari borom téere ñu dajee di waxtaan kenn ku ne xam naa dañoo sox defar génne seen téere yi di seet kenn ku ne ko borom xaatim bi ne xaj yow sa sëriñ bi bindaloon na dara xam nga saru saru sujaare dina ay ila kaale ni kiri kiri kiri bon kaale dina kene fi wa do ko wala le dina ko wala ko lo ngeen na sa te mu ne ko borom kaale dina ko le ci suma sey ñu leen ci bëri ñam sëriñ mi do ne ko ak yow ci ngi ko wala la sa sëriñ bi dina ah waaje itam xam nga nit ki day kiri ci sëriñ li mu nga doyal ak sëriñ naan la ko ولكن سيرنا بابو سيرنا من بجمع أوبر قاتل بنيو ni أوبر قاتل بنيو منكو كما كنت نبين قل هو بين قل هو واجب بين قل هو سيرنا بمسبيل وامي dal di jël pour bu war a def ko waaja dal di ko war a ñaane pour bu yëpp sànni ko ci sabara c'est à pour bu waxee la sàkk pour bu waxee mel ni nag comme nga ci biir ndox mu ne ko mu ne ko lii laa ko jox mu ne ko lii laa ko jox lii laa ko sax biñ def xulwa bu bind xulwa jox mu ne ko mu ne waa ji jox ma sa xulwa ji ma daal di koy jox xulwa bu boole ñaari xulwa yi sànni ko ci biir taal xulwa jëlee na jël fekk daal di tàkk mais ni xulwa bu xamal du bind xulwa jëlee nekk ba dara dara ñu ne ka defoon loolu ak sa demoon waaw waaw liggéey bu rafet la ndax muy liggéey jàkka ji rek kon ñu ngi sant yàlla bi nga xam ne matal na ko xëy na sax ñun dinañ gis ne tardement am na ci waaye li ko tardeel kiwal la jàmm la ndax li ko tardeel yàlla yërmande la ko tuddee moo di taw waaw voilà su bëri ci alquran soo ne rahmatu rek Kita firikati alquran yi dañ koy signé taw kon taw jël mande la ñu eh, ngi gërëm nag mos comité bi di gërëm waa Serakunda yëpp comme ni ma ko waxee woon ci bu njëkk nit ki su ngeen war soppante mu njëkk naa wax te fees raw nit ak bi waa jërëjëf daal di sàkku ma def ñoom ci yàlla rek ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te yàlla dogal ko manqué ci ban am waaye lu xam doon daw rek jiwu ak kilifa yi la ñu ne li ma bëggoon kilifa yi yëg ko ren bi ma yëgee ne mos a demee ci biir mos ko ci ban ci biir te mos ko ci biir ah. imaam lañ jiital ndax gis na ko ci kilifa yëg nañ ko kon kilifa yëg nañ ko loolu tax mu dal ci sawar ngeen baax naa ci li nga xam ne moo paase ko ñàkk xam rek la woon lépp lu muy gën a daal wala suma tànk jub fa na fekk kilifa yëg ko waaw lii rek na tax kilifa yëpp ndax ndaw toujours rek dafa war a nekk ci gannaaw kilifa waaw lii la woon li ko doon gis ni tey nag na ngeen xam ne gindi ni koo xam ne su fekkee yàlla dimbali ngeen ñu maa ngi ci gannaaw yàlla ak ak yu mel tam maa ngi ci seen gannaaw ngir yàlla rek ak ak yu mel tam yëgee gis naa ci yëpp a ko